Mamadou Ndour quitte le commissariat central de Dakar. Quelques deux mois seulement après sa nomination, le commissaire divisionnaire serait affecté au cabinet du directeur national de la police. Le commissaire Ndour a été remplacé par Elhad Hadjou Dramé qui, jusqu'à sa nouvelle fonction, dirigeait le commissariat spécial de l'aéroport international Blaise Diagne de Yes. Ce changement à la tête du commissariat central de Dakar intervient quelques jours après une manifestation organisée par l'activiste Guy Marius euh, Sagna et euh, euh, sept personnes, huit personnes plutôt, qui ont été arrêtées devant les grilles euh, du palais présidentiel. Suspension du mot d'ordre de grève des travailleurs de la SDE, seul accord pour le moment avec le ministre de l'eau et de l'assainissement. Les deux parties restent toujours divisées sur les 7,5% proposés par l'État. Le ministre de l'eau et les travailleurs de la SDE se sont rencontrés à Diamniadio Abdou Diouf après cette rencontre, le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serine Baïkiam et Eliman Djouf, coordonnateur de l'intersyndicale des travailleurs de la SDE, annoncent unanimement la levée du mot d'ordre de grève. La rencontre a produit des résultats positifs puisqu'il y a une confirmation de la suspension du mot d'ordre de grève. Moi, je peux parier sur euh, une levée du mot d'ordre de grève. La situation de l'eau est reprise depuis même ce week-end parce qu'il y a eu beaucoup d'équipes techniques qui sont en train de travail. La question des 7,5% semble encore diviser les deux parties. Eliman et ses camarades espèrent toujours de leur côté recevoir les 2,5% après leur rencontre avec le président de la République. Et pourquoi pas même avec l'ensemble des acteurs du secteur que sont les centrales syndicales pour aller voir le président de la République éventuellement pour voir quelles sont les possibilités supplémentaires qui pouvaient s'offrir à cette répartition du pourcentage d'actions qui devrait être réservé au travail des ST. Cam lui, campe sur sa position et maintient la décision de l'État qui consiste à leur donner 7,5%. Moi, j'ai essayé d'être sincère avec eux et de leur tenir un langage de vérité. Je pense que ce qu'ils ont obtenu est, notable à l'issue d'une lutte. Je leur ai expliqué qu'aujourd'hui, un salarié de la SDE qui avait peut-être 100 000, 200 000 francs de dividendes en tant qu'actionnaire va se retrouver avec 300 000. Concernant la question des logements, le ministre promet de saisir son collègues du logement pour régler ce problème. RFM Rifisque, Abdou Diouf Diagne. Abdou Diouf Diagne, éducation ce mardi débrayage dans toutes les régions de Durbel. L'annonce est du secrétaire général du SAEMS e au niveau régional. Les enseignants dénoncent la gestion de l'inspecteur d'académie de Durbel et l'absence de dialogue avec les acteurs. L'actualité hors du Sénégal en Gambie, Adamo Barrow met fin aux rumeurs faisant état d'un retour de l'ancien président gambien Yaya Diamé. Faux selon Adamo Barrow, il a fait d'ailleurs un recadrage pour stopper ces allégations. L'actualité des sports pour euh, terminer, la Ligue des champions européenne, entre autres, rencontre euh, ce mardi. Salzbourg qui euh, reçoit Liverpool de Sadio Mané, Naples de Kalidou Koulibaly accueille Genk, Ajax d'Amsterdam, Valence. Chelsea, Lille Olympique, euh, Olympique Lyonnais, Leipzig. Georges de Diop le flash info. waaleykum assalam Babacar di nuyu ñëpp. doore Mamadou Ndour mi jóge ci bop commissariat central bu Ndakaaru ñaari wër kot gannaaw gën ko fa tabé commissaire divisionnaire bobé ñu né ñu ko affecté ci cabinet bu directeur national bu police commissaire Ndour euh, ki ka fa wuutu nak modi di El Hadj Cheikh Dramé nekkoon ba jamono ji euh, comme ca commissariat spécial bu aéroport international Blaise Diagne bu Diass coppite yooyu ñu nemeeku ca comi commissariat bu dakaro euh, mu ngi am ay fan gannaaw manifestation bi nga xamantene ñoomi gi Marius Sagna ak andandom defon nañ ko ba mu yóbbu ci kanam mu palais présidentiel mbirum eh, SDE ak grew bi nga xamante ne kat ya sumbon nañ ko eh, liggéey ba eh, grew ba nak suspendre nañ ko déggoo gi ci lenn rek la modi ni ñu suspendre bobé mo door ci ab ndaje bi nga xamante ñu ko amaloon ak ministre de l'eau et de l'assainissement ñaari parti nak ñom ba léegi déggoo guñ ci 7,5% yi nguur gi nguur gi proposé kat yi ngir ñu am ko ci société bi fasiyene yor ndox mi fi ci Ndakaaru ak lik wër ñoom ministre de l'eau et ak travailleurs yi ñu ngi doon daje ca jam ñaajo Abdou Diouf Diagne ginnaaw ndaje mi jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàllu ndox ak assainissement di Serigne Mbaye Thiam ak ñi nga xam ne nag ñoom ñooy liggéeykat yu SDE yi ñoom ñëpp d'accord nañ ci menn mbir mooy grève bi moom danañ ko dakkal te defe naa ne syndicat yi SDE yi ak travailleurs SDE yi ñoom ñëpp gédd nañ ci ak dignité ak responsabilité ñu suspendre le mot de grève comme réquisition chef d'état bi moo ko jël nañu suspendre le mot d'ordre de grève te dem liggéeyi loo xam ne jiixi jaaxa daal dina ci am ci diggante ñaari parti yi mooy lu soxal wàllu 7,5 pour cent yi nga xam ne état bu Sénégal daf leen koo bëgg a jox gars yi Ngom yi di xam le ni dem si njiitu réew mi ngir daal di mën a am yi nga xam ne moo leen tee am 10 pour ji kay nee ñooy parce que waxtaan wi ñoom bi ñu bëggee dara ñun ñu exprimer ko ñoom ñu wax ñu ne fii la mën a yem kon nag fii ñu mën a yem ak tamit réew mi li mu yor parce que yor na au moins yoo xamante ne moom moo ko téyel bopp te ñun lan lañ ci bëgg ñaar ak genn wàll kon nag yaakaar naa loolu difficile waaye nag kilifa du wax ne ci dëgg lañu ko teg wax na leen lii nga xam ne moom la gouvernement bi man te ku nekk man koo dégg taan boo xam dañ koo teg ci dëgg dañ ko teg aussi ku ci nekk li nga gëm nga wax ko bi ñu waxtaanee ba pare gis nañ ne ñoom liñ doon laaj fukk yëpp ñu jox leen fukk yëpp xëy na loolu mënula am euh, wàccoon nañu ba juróom-ñeent après wàccoon nañu ba juróom-ñett mais finalement ma wax leen li nga xam ne ñëpp mën nañ koo def ku nekk dégg ko mooy fukk yi bu nekk ñoom juróom-ñaar ak genn wàll ñu am ko ñeneen ñi am ñaar ak genn wàll yi dañ koo indi woon mooy seen wàllu dëkkuwaay jëwriñ di di xamle ni dina ci waxtaan ak ki nga xam ne moom la ñu dénk wàllu dëkkuwaay fii ci Sénégal RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne Abdou Diouf Diagne ci njàng meek njàngale mi talaata gi ab débrayage moo fas yéene am ca région bu Diourbel secrétaire général bu SAEMS e euh, ca région ba moo ko xamle jàngalekat yooyu nag li ñuy ñaawlu euh, moo yorinu inspecteur d'académie bu Diourbel ak ni itam euh, waxtaan amut ak ñëpp ñi yëngu ci njàng meek njàngale mi xibaaru biti réew ca Gambie Adama Barrow addu ci liñ doon rumanaat ne Yaya Jammeh dana ñib si lu yàggatul foofu ca Gambie Adama Barrow ne loolee yëpp Uh, amut uh, jeexle kook xibaaru tàggat yaram ak Ligue des champions ca Tugal bokk na ci ndaje am ni Salzbourg di dalal Liverpool bu Sadio Mané Naples bu Kalidou Koulibaly di uh, dalal waa Genk Ajax d'Amsterdam ak Valence Chelsea fas yéene laaleeg Lille Olympique Lyonnais ak Leipzig jàppale itam Barcelone day dem Inter Milan.